loolu daa bëgg a wàcce. man maa ngi jóge fii. na dem na dugg ah. ah waaye bëgg a déggee nouvelle bi lu la def. man daal dama ko di samay dëkkandoo daal ñoo seen doom ñoo ne woote après ñu ne xale yi fii am na problème ma ànd ak ñoom ñoo di seet ci loolu rek laa ah. naa leen loo xam ne lu mu a ñu ah, ah, tiitaange yow doomu aadama bu waxee ne moom mi ngi daw te xamul daw. Mm-hmm. te mun daw ba que jotoon nag ñu wax xale yi ñu dal te xam ne dañ leen jàngaloo rek waaw loola ni digal ah des na ñu koy jàngal waaye man loolu mu jëf lu leer. ok merci. ah waaw comme. da dem bu baax. niñ dégg nañ action yi ni mm-hmm. ñu yëg ko rek. am ko suñu rakk ak suñu dëkkandoo. tàbbi si fi daal ñëw xool. lan geen yëg lan lañ leen wax yéen. waa ñun de bu ñu ko yëgee xam nga kenn ko fii moom àdduna la kenn ku ne ni ñu uh-huh. lan dégg ba mu tax ñoo jógee suñu kër ñëw fii sax mën na am dina wut noonu. waaw uh-huh. waaw ndax yaakaar naa ne mais lan nga dégg quoi. mooy booy dañoo tëpp dañoo tëpp étage yeeg yooyu ñun dañu dégg ñu ne boo yoo xam ne dañoo dajji ba sonal déggee suñu kër rek jóg. te naa sax mais xam nga rek c'est comme dëkkandoo rek. yëkkati ko rek jéem a ñëw soowee comme ñëpp daal. ok baax na jërëjëf doo déggee ci. mais ñaax xale yi rek. waaw liñ leen ñaax mooy ñu toog de jàng rek nga xam ne moom sëriñ bi li ñu leen bëggal mooy lu baax rek. ok waaw te man nañ ni suñ saali ko fi teg c'est comme ko fi teg moom suñ sëriñ ñëpp jub daal. Mhm. waaw loolu rek moo tax mu ubbi daara ji meeru neneen ak ndey amul ndey waaye naa ngay bul bul ci xaaral nga jëm